learningphrases.com. Mehr Informationen in der Videobeschreibung. Salam salaamaaleykum yéen ñëpp salaamaaleykum yéen ñëpp salaamaaleykum ñëpp jàmm nga fanaan jàmm nga fanaan jàmm nga fanaan gëj naa la gis gëj naa la gis gëj naa la gis am naa mbégte ci xam la am naa mbégte ci xam la am naa mbégte ci xam la ba ci kanam ba ci kanam ba kanam ba léegi ba léegi ba léegi ba beneen yoon ba beneen yoon Ba beneen yoon. Ba suba. Ba Ba suba. jërëjëf jërëjëf jërëjëf dama laa bëgg dama laa dama laa bëgg danga reetaan lu lool danga danga baax lool danga baax lool danga baax lool danga rafet danga rafet danga la rafette. Dans danga rafette. Dans la ndax bëgg nga ma ndax bëgg nga ma ndax bëgg nga ma bëgg naa la lool bëgg naa la lool bëgg naa lool bëgguma la bëgguma namm naa la lool namm naa la lool namm naa la lool bàyyil ma foon la Bàyyil ma fóon la Noo tudd Noo tudd noo tudd maa ngi tudd maa ngi tudd maa ngi Yaw la kan Yaw la kan Yaw la kan Ndongo la ndongo la ndongo la opitaal lay liggéey opitaal lay liggéey hôpital lay liggéey ban réew nga jóge ban réew nga jóge المال المال المال española espagnol laa espagnol laa mexicain mexicaine faranse la faranse la faranse la ñaata at nga am ñaata at nga am nga am na naa ñaar fukki at ak juróom am na ñaar fukki at ak juróom ñaar fukki at ak juróom ban waxtu moo jot ban waxtu moo jot ñeenti waxtu ci ngoon moo jot ñeenti waxtu ci ngoon moo jot ñeenti waxtu ci ngoon moo jot tey amuma jot tey amuma jot tey amuma jot suba la sama aniwerseer sama aniwerseer suba sama aniwerseer ren bëgguma féete sama aniwerseer ren bëgguma féete sama anniversaire bés bu dellusi moo neex bés bu dellu si moo neex wiken nu jàmm Weekend nu jàmm Weekend nu yoonu jàmm demal ak jàmm yoonu jàmm demal ak jàmm ak jàmm tey la juróom ñeenteelu fan ci weeru septambar

ban bés lañu nekk tey ban bés lañu nekk tey ban bés lañu nekk tey tey la talaata tey la talaata tey la talaata tey dama jàpp tey dama jàpp tey dama jàpp loo def tey loo def tey loo def tey Suba la Àllarba. Suba la Àllarba. Suba la Looy def suba? looy def suba looy def suba loo bëgg def suba suba loo bëgg def suba suba dama bëgg seeti sama baay sama baay suba dama bëgg seeti sama baay. loo def démb. loo def démb. ndax mën nga wax ndànk ndax mën nga wax ndànk ndax mën nga wax ndànk ndax mën nga waxaat baat yi ndax mën nga waxaat baat yi ndax mën nga waxaat baat yi ndax mën nga ko waxaat ndax mën nga ko waxaat ndax mën nga ko waxaat ndax mën nga ko bind ndax mën nga ko bind ndax mën nga wax araf yi ndax mën nga wax araf yi ndax mën nga wax araf yi ndax mën nga firi lu baat bi di tekki ndax mën nga firi lu baat bi di tekki ndax mën nga firi lu baat bi di tekki dégguma ko dégguma ko dégguma ko lu di tekki lu di tekki lu di tekki xamuma lu muy tekki

hamuma expression bi nanga def nanga def nanga def maa ngi fi rekk maa ngi fi rekk maa ngi naa lool bég naa lool bég naa lool sonn naa lool sonn naa lool soon sonn naa lool am naa naqar lool am naa naqar am naa naqar lool dama jaaxle lool dama jaaxle lool dama jaaxle lool dama soj dama soj dama soj sama yaram neexul sama yaram neexul sama yaram neexul dama am ay tolof tolof yu bari dama am ay tolof tolof yu bari am ay tolof tolof yu bari bul jaaxle bul jaaxle bul jaaxle dama mar dama mar dama mar loo bëgg naan loo bëgg naan loo bëgg naan ndox laa bëgg naan ndox laa bëgg naan ndox laa bëgg naan ndax dangay naan sàngara ndax dangay naan sàngara ndax dangay naan sàngara benn kafe Benn kafe benn kaasu kafe laa bëgg. benn kaasu kafe laa bëgg. Benn kaasu kafe la bëgg. Ndax bëgg nga ataaya? Ndax bëgg nga ataaya? Ndax bëgg nga ataaya? ataaya nga bëgg naan wala kafe ataaya nga bëgg wala kafe Maruma Maruma loo bëgg lekk tey ci guddi loo bëgg lekk tey ci guddi ci guddi ndax lekk nga ba suur ndax lekk nga ba suur ndax lekk nga ba suur suur naa yow nag suur naa yow nag suur naa yow nag dama xiif dama xiif dama xiif dama bëgg lekk Dama bëgg lekk dama bëgg lekk loo bëgg lekk loo bëgg lekk loo bëgg lekk salaat laa bëgg lekk salaat laa bëgg lekk salaat bëgg lekk lekk naa ba pare Lekk naa ba pare. Lekk naa ba pare. Nuy laa bëgg lekk. Nuy laa bëgg lekk. nuy laa bëgg lekk supp laa bëgg lekk supp lekk Hifuma Hifuma Hifuma Ndax am ngeen Ndax am ngeen menu Ndax am ngeen menu serveur andil ma menu bi serveur andil ma menu bi serveur andil ma menu bi serveur addition bi serveur addition bi serveur addition bi loo may diggal loo may diggal loo bala ngay ñëw ngir def réservation wooteel bala ngay ñëw ngir def reservation wooteel ngay ñëw ngir def réservation nu kilimaa bi mel tey nu kilimaa bi mel tey ndax dina taw ndax dina taw ndax dina taw tey dafa tàng tey dafa tàng tey dafa tàng tey jant bi dafa génn tey jant bi dafa génn tey kilimaa bi neex na Tey kilimaa bi neex na. Loo bëgg jënd? Loo bëgg jënd? loo bëgg jënd kartu dëkk bi laa bëgg jënd kartu dëkk bi laa bëgg kartu dëkk bi laa bëgg ay dàll la bëgg jënd ay dàll la bëgg jënd ay dàll la bëgg jënd ndax mën nga ma wan bii ndax mën nga ma wan ndax mën nga ma wan bii lépp ñaata la lépp ñaata la lépp ñaata la ii seer na torop ii seer na torop ii seer na torop seer na torop seer na torop seer na torop amuma xaalis amuma koppar amuma xaalis amuma koppar amuma sama kalpe dafa réer sama poset dafa reer sama kalpe dafa reer sama posset dafa reer sama kalpe dafa reer sama poset dafa reer dama bëgg ay dollar ngir am euro dama bëgg ay dollar ngir am euro dama bëgg weccoo ay dollar ngir am euro demb dama sojoon démb dama sojoon démb dama sojoon mënuma woon nelaw mënuma woon nelaw woon nelaw dama soj dama sëkkat suba si yépp dama soj dama sëkkat suba si dama soj dama sëkkat suba si sama yaram dafa tàng ba jot ñett fukk juróom ñeent dëgëre sama dëgëre sama yaram dafa tàng ba jot ñett fukk juróom ñeent dëgëre dama feebar weruma dama feebar weruma dama feebar weruma damay faral am bopp buy metti damay faral di am bopp buy metti sama biir dafay metti lan laay def sama biir dafay metti lan laay def def taneel ak jàmm ci lu gaaw taneel ak jàmm ci lu gaaw sama yaram dafa seexlu sama yaram dafa seexlu sama yaram dafa lan nga allergie lan nga allergie lan nga allergie lii lan la lii lan la lii lan la kii kan la kii kan la kii kan la ani boroom xaj bi ani boroom xaj bi loo def loo def loo def fooy liggéeyee fooy liggéeyee fooy liggéeyee li liggéey dafa bari li ngay liggéey dafa bari li liggéey dafa bari noo ko xamee noo noo ko xamee foo demoon démb ci guddi foo demoon démb ci guddi kuy sa bindkat kuy sa bindkat kuy sa bindkat kuy sa acteur kuy sa acteur كويسة أكتر ñëwal ñëwal ñëwal ndax mën nga tëj Bundesbi ndax mën nga tëj bunt bi ndax mën nga tëj bunt bi toogal toogal toogal dalal dalal dalal noppil noppil noppil bul wax bul wax wax déglul déglul déglul bul def coow lu bari bul def coow lu bari bul bàyyil coow yi Bàyyil jooy yi Bàyyil jooy looy ree xaar ma maa ngi ñëwaat léegi xaar ma tuuti maa ngi ñëwaat léegi xaar ma tuuti maa ngi ñëwaat léegi nañu noppalu fukki simili nañu noppalu fukki simili nañu noppalu fukki simili ñu dem sinema ba ñu dem sinema ba ñu dem sinema ba dañuy tere ku fi tux dañuy tere ku fi tux dañuy tere ku fi tux nañu ànd nañu ànd and wa wàññil sa tànk wàññil sa tànk

bul toppatoo li ñeneen ñi di wax fayal misik bi Ndax mën nga fay sa telefon portaabal. Ndax mën nga fay sa telefon portaabal. Ndax mën nga fay sa telefon portaabal. kañ nga may fay sama xaalis kañ nga may fay sama xaalis dama am benn xalaat dama am benn xalaat dama am benn xalaat xalaat bu baax la xalaat bu baax la xalaat bu baax la poñ bi am na solo poñ bi am na solo Poñ bii am na solo. Lu ci sa xalaat? Lu sa xalaat? dama bëgg xam lu ci sa xalaat. dama bëgg xam lu ci sa xalaat. xamuma li nga bëgg wax xamuma wax ndax ànd nga ci ndax ànd nga si ndax ànd nga si fogguma ni def naa naka sudul noonu fogu ma ni def naa naka sudul noonu fogu ma wax nga dëgg wax nga dëgg wax nga dëgg noonu la demee noonu la demee noonu la demee yónnee naa la sms yónnee naa la sms yónnee naa luy sa numéro luy sa numéro luy sama téléphone doxul sama téléphone doxul sama téléphone doxul lu xew lu xew lu foo réeral sa téléphone foo réeral sa téléphone suba dinaa la yónnee email Suba dinaa la yónnee email. Suba dinaa la Fàtte naa sama mot de passe. fàtte naa sama mot de passe fàtte naa sama de passe fàtte naa tur fàtte naa sa tur dof nga rekk dof nga rekk dof nga rekk noo amee fitu waxeek man mi noo amee fitu waxeek man nii noo amee fitu waxeek man nii ndax danga soxla ndimbal ndax danga soxla ndimbal ndax danga soxla ndimbal ndax mën nga ma dimbali ndax mën nga ma dimbali ndax mën nga ma dimbali ndax mën nga woo ambulance ndax mën nga woo ambulance ndax mën nga woo ambulance nga baal ma mënuma la dimbali nga baal ma mënuma la dimbali nga baal ma mënuma la dimbali fu opitaal bi nekk fu opitaal bi nekk fu opitaal bi nekk foo jëm foo jëm foo jëm dama wara dellu kër ga léegi. wara dellu kër ga léegi. dama ban yoon moo jëm ci poste yoon moo jëm ci poste bi fu pharmacie bi gëna jege nekk fii fu pharmacie bi gëna jege nekk fii fu pharmacie bi gëna jege nekk fii ndax dafa am kuy toog fii ndax dafa am kuy toog fii ndax dafa am kuy toog fii dama am benn laaj dama am benn l'all. Demà ndax mën naa la laaj dara ndax mën naa la laaj dara ndax mën naa la laaj dara xamuma xamuma xamuma amul solo amul solo ndax mën nga ko waxaat ngir yàlla ndax mën nga ko waxaat ngir yàlla ndax mën nga ko waxaat ngir yàlla maa ngi jéggalu ci li ma la tànkal maa ngi lay ñaan nga mottali sa kàddu maa ngi jéggalu ci li ma la tànkal maa ci li ma la tànkal maa ngi lay ñaan nga mottali sa kàddu loo wax léegi loo wax léegi loo wax léegi ndax am nga jabar ndax am nga jëkkër ndax am nga jabar ndax am nga jëkkër ndax am nga jabar ndax am nga jëkkër ndax am nga ab coro for ndax am nga gel ndax am nga ab coro for a ndax am nga gel for Ndax am nga ab coro for a man or ndax am nga gel for a woman. ndax am nga far ndax am nga far ndax am nga far am naa bëgg-bëgg am naa bëgg-bëgg bëgg sama bëgg-bëgg mooy soppi àdduna bi mu nekk dëkkuwaay bu gën sama bëgg-bëgg mooy soppi àdduna bi mu nekk dëkkuwaay bu sama bëgg-bëgg mooy soppi àdduna bi mu nekk dëkkuwaay bu gën rëddal ma ab xar rëddal ma ab foo nekk foo nekk dama wara dem dama wara dem dama wara dem bul toppatoo li ñeneen ñi di wax bul toppatoo li ñeneen ñi di wax ak loo mënti wax toppatoo wuma ak loo mënti wax toppatoo wuma ko ko Billaay mënuma ci dara billaay mënuma ci dara ci dara sa baat yi jubbul. sa baat yi jubbul. sa jubbul. maa ngi koy mettitlu maa ngi koy mettitlu